nee woon na ku koy corote ñu ne ko Ouzin yaa koy corote mu ñëwaat ni vërëj varaj Ouzin Keita la ndaanaan kenn dootu ko présenté nuy naa la. waaw fay naa la maa ngi sant yàlla ginnaaw yàlla ma sant yàlla sant sama ñaar waajur di sant waa Sénégal sant waa àdduna bi. man Ouzin maa ngi nii je suis là damaa fas yéene football fu ne fi faraj. Ah, waa Saliou beneen ndaanaan ah artiste comédien kenn dootu ko présenté saa su ma téye sama micro wax leen ko MC li ma lay jëkkal ana Père Persora defal naa ko bagage moo ngi prison. <laughs> nuyu nañ la bu baax a baax. fay naa la bu baax a baax. ñu gis la tey nga teew ci stade bi mais doon nga joué waaw maa ngi waaj a nii. incha allahu rabbi te bu ma fubalee di nga xam fubal naa. sànq gisoon naa la nga lu la génne ma sànq gisoon naa la ngay fubal. waaw maa ngi fu damay fubal. instant ah. damaa def benn pause ba pare ma àggal ah yaa star nga nag faaw foo def pause. waa léegi lan nga gisee waaw ñu def euh, euh, comédie mbalax maan loolu mhm. lu baax la mhm. gën a sant yàlla baax a baax mhm. alhamdulilah kon nar nga lu rëy de man MC borom wiiri wiiri l'ami des jeunes fii ennemi des garçons yow xanaa xamoo ma yow dëgg du neex maa ko looy dolli waa Arcos ak organisateur événement bi waaw waa Arcos maa leen di dolli maa leen di ñaax ni leen affaire yi nice na rafet na man chaque année damay ñëw man moom lu xew wax dëgg yàlla ci Arcos

police itam jaar mhm. wala daraam jaar wala man Ouzin Ka maa ngi leen dégg de mhm. waaw du ma leen tontu mhm. ndax xam laatal sama avancement a sama yokk yokk moo bëggee moo bëggee tukki dem Europe dem a dem kon bëgg ñu ñi waaw yow déggal loolu may avancé loolu loolu sant yàlla uh-huh. man xam naa yàlla xam naa dina gën a samay bàkkaalaat waaw loolu man maay borom xotti sa pain waaw waa El Vision kon loolu la eh xotti sa pain eh, eh xotti sa pain eh, sa pain bu xottee ko ma ñaawal la ko eh, El Vision faut pas siino ma demal la maaga <laughs> Aïcha mu ngi noonu waaye moom ma dal wax ngeen jàpp taw baay nax bu méttee nga daw bu neex doo commencé fekkee jàpp la taw baa léppay baax te gën gëm te dëggal ko te bañ a déglu kenn dama lay defal invitation Elvision Média après dinaa ñëw jël sa numéro. nga ñëw teew Elvision Média. naa fa ñëw wàcc fa ba muy zoro foo nekk. foo nekk. foo nekk.